d'abord dinaa fi julli ajuma tey nag euh, particulièrement li taxoon ma ñëw mooy fekkee robu nit ku tedd googu di Lamine Diack moo fi indi woon euh, bi may yëgee euh, demam maa ngi ko yëg nag presque ay trois heures du matin ci RFI laa ko njëkk a yëgee dama jog toog tudd yàlla xam ne aussi nit ku baax dem na ca man goro la ci man parce que sama doom presque sëtam lay sëyal sama doom bu góor sëtam lay sëyal euh, donc ma xam ne nit ku baax la euh, takki na fi ndombu tànk bu ne nekk na fi ministre nekk na fi maire sport aussi euh, takk na fi ndombu tànk bu gën a kawe ci sport boobu muy IAAF mu nekkoon président bi depuis des années taxutoon mu fuuy xam naa ay njabootam maa ngi koy jaale ay njabootam aja jaag surtout di ko jaale masatar doomam euh, di ko jaale jàbba nga xam ne sëtam boobu di sëy ak sama doom sëñ Saliou euh, taxutoon mu fuy njabootam fuyu man en tout cas ba ñu duggee ca kër ga ba léegi yar laa fa gis ak teggin moo tax ma koy ñaanal yàlla yàlla xaroo ko àjjana di ñaan xale yi ñu jël exemple ci ju mel nii ay mag yoo xam ne dundu nañ te kenn mësu leen dégg ci ci lu ñaaw taxul aussi ak ndombo tànk yi nga xam ne yëpp mos nañ ko takk ñu fuuy parce que nag bés bii moom du ñàkk du jaas ci kenn kooku ku nekk ci réew mi ak bitim réew ak ndombo tànk boo ti takk nangay ngay fàttaliku bés bii nga nekk nit di dimbale nit yi xam ne nit rek nga doon yàlla la bind li nga yoree yàlla la ko jox ca bés du ñàkk yàlla dina la oo pour layoog yow. yow non man euh, melu ma aw ma woon ay relation particulière ak moom noonu doomam yi laa gën a xam Masata moom xam naa ko miin naa ko Adja di doomam bu jigéen min naa ko sëtam euh, sama sama sama goro la mais du ma doon dégganteek moom noonu mun naa wax ne sax mosuma toog nii moom mu toog mais nag nit ki mën nga ko xam te du ngeen toog